wa radiyallahu tabaaraka wa tacaala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wala xawla wala quwwata illa billahi alcaliyi alcazim fas yéene tàmbali su ñaareelu bind ci risalatu bni abi zeydin alqayrawaani radiyallahu tabaaraka wa tacaala anhu wa raximah téere la boo xam ne li am solo ci pas-pas ak li jaam bi soxla ci fiqhu ngir mën a jaamu boromam jëfandikoo ay atem ak teggin ye yooya war a àndal la ci borom téere bi boole ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib la boo xoolee gannaaw muqaddimatu bi bi mu waxee ci aqidatu walla ci tawxid ba noppi dana la indil ñeent fukki buntu ak ñeent yoo xam ne dana tàmbalee ci ponki julli jàpp azaka jàpp ajak ak ya aju ci yooyu ci atte dana la indil ay bunt yu aji ci jihaad yu aji ci ngëñ ak nidir yu aji ci sëy ak ya ca topp mm-hmm. la indil bunt yu aju ci njaay ak ndénkaane ak miraas ak yemel ni yooyu mm-hmm. su paree nag ci la indi jumal min al faraid wa sunan al waajiba wa ragaib nga xam ne dana ca tuddaat yenn yam tuddoon Euh, ak yeneen yum tuddut bu doon ci suñu lisilaaxu ñun dañuy wax tasawuf la waaye tasawuf tur la rek imaam ibnu ashir ne fi aqdi lashari wa fiqhi fi tariqati ljunaydi saliki nee na ci ñett yooyu la tabax téeréem bi hmm. euh, benn kilifa gu mag nag te dana ko tudd mooy sabab ci taalif gim taalif téere bi mooy saydi abu mahfoud mehriz al tunisi al maliki al qayrawani mu fi jógee atum ñeenti téeméer ak lu jege fanweeri at doon wëllëreem doon kilifa daan jàngale alquran ni ko ibnu abi zeydi daan jàngale mu xam ne nag xale yi li ñuy jàng soxla na ñoo xam li muy firi waaw ndax bu dul loolu borom fay mel ni kaset rek buy tari waaye soxla nañoo xam waaw alxuraan ab bataaxal la hmm, waaw bataaxal la boo xam ne hmm. ñëpp a war a xam li ci ne waaw jii ñi fi ñu jógee beneen dëkk dëkk dikk ci dëkk bi hmm. buñ jógee jotee lettre bu jógee ci immigration office <laughs> <laughs> buñ ko bindoon ci chinois sax balaa ñoo tëdd <laughs> danañ fexe ba xam li ci ne lan la waaw ku ci yoon woowoon wala mu bind la balaa nga am jàmm da nga fexe ba xam li ci ne waaw lii nag moo bind bataaxal ñépp ma <laughs> dem dem moo fi wëcc ba léegi ba léegi ba ma am suma siti siti dama loolu yàlla rek ko <laughs> parce que leer naa immigration foo naa rey waroon na maa rey mu ngoog te nag bu ma fi wëccee may dund ba ma ba ma jël suma siti siti waaw ah yàlla mi yóbbu suma pour faraw yi ba léegi seet seetal seetal seetal leetaram yàlla mi nga xam ne nag moom ah Eh, immigration nag Amérique gi ëmb immigration Afrique Europe àdduna biñ nekk planète suuf ak yeneen planet yi ëmb suñ galaxie bi mm-hmm. ak àdduna yiñ xam ak yiñ xamut asamaan ak kursi yoog arash ak mbindeefam yu mag yooyu yëpp booleen boole matuñ ni sànq ci kanam yàlla waa seetal lettre kooku nag nan lañ war a jëflanteeg moom te ba léegi am nañu ñu jàngagut lettre bi est <laughs> am na ku <laughs> ah, ah, taxaw sax néew na de mën naa waaye jéem gi am na koo xam ne layam mooy bàyyam jàngalul ko woon alquran ba muy ndaw te liñ soxla ci yow mooy nga xam li ci lettre bi ak noo ko mën a xamee ki jàng tubaab ki jàng beneen lakk làkk alquran eh, tarjama nañ ko ci lakk yooyu yëpp soo mënta xam dëgg dëgg mbir mi it la lettre bi bëgg ci yow moom danga ko xam boo jàngee eh, tarjama bi waaw waaye ñu bari defuñ ko yitte ñu bëri defuñ ko yitte waaw xam naa dañoo teewlu wut ba léegi rëyaayu ki ko yónnee rek waaw dañoo teewlu rëyaayu ki ko yónnee dañ waaw te it xëy na eh, ñi gàttañ lu am na ci ñu xamal leen njëriñ li nekk ci bu jàngee lettre bi ñu yónnee leen mm-hmm. waaw nag moo tax borom téere bi taalifal ko xaritam bi te dana ko wax ci kanam mm-hmm. ñu ngi tolloon ci wa allamahu ma lam yakun yaalamu mm-hmm. yàlla mu bindee nit seetaanu ko of course of ko xamal lum xamutoon ndax xamutoon dara sax wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna cheyan wa kaana suñ sëriñ si dañ daan firee wa kaana mosul dëñ fadlullahi ngën a lelu yàlla hmm. alay ci doomu aadama aziman hmm. lu màgg hmm. waaw wa kaana mosul dëñ musumoo dañ waaw musu waaw musumoo dañ boobu moom bu xóot bi la imaam Baraam noonu la daan firee <laughs> wallaay ndeysaan kaana fadlullahi alayhi aziman waaw ah. mhm. nee na wa nabbahahu hmm? mu xëy ko mu yee ko mhm. mu bàyyi loo ko xel mu fëgg mu fëkk mu pëkk pëkkal ko pour mu yeewu moo ko pëkk pëkkale mu ne bi aathaari sanaatihi ci jëfam ci jeexitu jëfam jëfam wala jëfandikoom hmm. waaw yàlla maanaam yàlla moo yee nit pour mu mën pour nit xam ko bi mu ko fëkkee ni bi mu ko fëggee pour mu xam kiy fëgg njeexitu fëgg gi la ko xamalee ne am na koy fëgg wa nabbahahu mu yee ko pour mu xam ne am na ku ko bind nan la ko ko yee mu ni bi aathaari sanaatihi daf ko won lim bind pour mu xalaat ne lii kat luñ bind la te lépp luñ bind am na aji bind aji bindam mo yàlla waaw nit bu xoolee li ko wër hmm. xam ne lii faam ko ko fi def ka ko fi def koy boromam moo tax yàlla daf ko yee na ko mooy mooy woo na ko ci mu xalaat te wan wan na ko it ci lan lay xalaat ngir mën a àgg ci xam ko waaw te ba ca gën a jege mooy sa jëmbi bopp ji yow moo tax ba mu ne sa nurihim ayatina fil afaqi ngay xool fële mu ne fi ngay xool sëri na xoolal ci sa bopp wa fi anfusihim <laughs> allah akbar waaw ah. déedéet wa fi anfusihim xataa yatabayyana lahum annahu alhaq allah akbar waaw ah. loolu la wax ci ci suratu tafsil wala suratu fussilat ca suratu Zariyat mu ne woo fii anfusikum afala tubsiruun xool leen xanaa gisu leen xanaa gisu leen seen bopp man mi ni ma leen bindee laqad xalaqna li insaana fii ahsani taqwim matal sa bind rafetal ko jox la ay tànk ki loxo fu la neex dem noo mëne noo bëgg a def def jox xol buy jàllat bi ko jox la làmmiñ bu jox lay cër xool loola nag ci yi la wër tamit abu aha maanaam lesin biñ jàll nii mhm. afta def naa ci waxtaan woo xam ne mhm. Euh, am na ku ne mosuma dégg ngay wax façon waxi ci <laughs> ci ci ijaat ak indaat boobu noonu. Ah, est-ce que est-ce que ma ma maa ngi jëriñu loolu. <laughs> déedéet ñun ñëpp a ngi <laughs> waaw dama mosuma dégg ngay waxee façon waxi. est-ce imaam imaam Nawawi noonu la loolu imaam Nawawi. boo gisee taalifam yu bari yi waaw may bu jàngee ci suba waaw allahu akbar balaa ngoon dana jàngale lim jàng ci suba <laughs> te du ca yem ah, waaw daf daan li jàng moom lay jàngale ba bind ca taaliq taalif ca imaam Nawawi diggante six cent trente un ak six cent soixante seize la dund xam nga kooku dundam guddul de six cent trente un six thirty one ba six cent soixante seize fo forty five forty five years passé wu ko. forty five years la dund. waaw. ok bind naa ko imaam. Nawawi. dégg nit ñi gaa gaa atomic bomb alxun bu la Nawawi <laughs> moom moom mooy diggante bu waaw xam nga dañuy wax ne boroom xam-xam yëpp seen dëkk yi lañ leen xame Allahu des Nawawi xam nga buñ ne al-Baghdadi di nga bëgg a xam al-Junayd al-Baghdadi lañ bëgg a wax wala Abdul Qadir jilani al Bagdad moo leen ëpp bayre ñoom ñëpp buñ ne diw almadani hmm. da nga bëgg a xam ndax imam Malik la ñuy wax wala Rabia la ñuy wax li ñuy siiw siiw seen dëkk yi leen gën a seen dëkk yi leen jox jox siiw hmm. képp bépp boroom xam-xam rek danañ ko askane ci dëkk bu siiw bañ xam ko nawaa gi imaam nawawi du tudd nag dañ koo askane imaam nawawi ba tax nit ñi xam ko moom nawa kenn xamu ko on nga balaa imaam nawawi moom waaw nawaa moo siiwal dëkkam ni dëkk yi di siiwalee waaw waaw nawaa maanaam imaam nawawi ko siiwal ni nga xamee ne yeneen dëkk yi waaw ni nga xamee ne yeneen dëkk yi nooñu leen daan siiwal ñoo doon siiwal seen seen i borom xam-xam. seen i borom xam-xam. Mm-hmm. waaye mm-hmm. xam dañ daan siiwee seen dëkk yi. Mm-hmm, dañ daan siiwee seen dëkk yi dañ daan tudd dëkk biñ dëkk. ngir ñu xam am maana mu ngi mel ni rek yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci misaal ndax yonantu moom kenn ko misaale kenn waaye waykat ba def ne kam min abin qad ala bibnin lahu sharafan kama alat bi rasulillahi adnaanu sallallahu alayhi wa sallam xam nga nit dañ buñ tuddee nit ñu ne fuñ bokk fu mu bokk ñu ne mi ngi bokk ci bannoo diw sàngam ñu ne ah kooku ci gaño gu baax la bokk waaye yonent bi duñu wax ne fu mu bokk ñu ne Quraysh ñu ne ah ci gañe gu baax lañ bokk dañ naan Quraysh kuñ bokkal ñu ne <laughs> ñu ne <laughs> yonent ñu ne ah <laughs> Quraysh kay mënuñoo ndax kiñ bokkal ñu baax kam min abin qad ala bibnin lahu sharafan kama alat bi rasulillahi adnaanu waaw taggee adnaan rek Mhm. ba nga xam am na koo xam ne war naa dëgg la bu dañuy wax ne ah. bul nekk diw nekkal doomi diw bul nekk doomi diw nekkal diw. nekkal diw. Ah, waaw Saalum Saalum ñu ne doomi diw rakkal la. ñu ne rakkal la de. <laughs> Eh, <laughs> boo jëlee waaw boo pressé gerte gi ba diw gi génn. ba ba càkkaay waaw yow diw gi nga soxla soxla wa rakkal gi. Eh, diw lañ si àll rakkal la neel ah, diw kunib na kunib na man shi ah. ita ah. waktasib adaban rakkal <laughs> doomi diw rakkal la hmm. maanaam maanaam amul solo déedéet amul solo amul solo mukk wax ja yëpp wax ja yëpp mooy amul solo amul solo ku nib ni man ci ku nib na man ciita la waykat bi wax do doxal doomi ku la neex waktasib adaban yugnika mahmuduhu an nasabi waaw ah, ku la neex na la jur fexeel rek yow ba fexeel réew ba xam ak mel noo xam ne hmm? duñ la tàggatee askan yow. jeex na. waaw askan daal lu tax ñu tàgg la waaye nañ la tàgg ngir nit ki nga doon. waaw fa laysa yughni alxasibu nisbatuhu fa laysa yughni alxasib nisbatuhu dégg nga hmm. bila lisaanin lahu wala adab inna alfata man yaquluha ana dha laysa alfata man yaqulu kana abi. Allah. waaw diwoo ma diwoo ma jur diwoo ma la oh. waaw mhm. benn yaram benn daf daan wax ne ana bnu jala wa talaau thanaya waaw dañ ko laaj dañ ko laaj yow maanaam fu yow foo bokk ku la jur mu ne man mu ne man maay doom yi ma nga nële waaw eh, <laughs> mu ne mu man maay doom yi ma nga nële maanaam fu ma jaar rek lu mbooloo bari bëri bëri man la ñuy joxañ waaw ana bnu jala wa talaau thanaya waaw mata adaa il imamata taarifuni waaw mu ne maay doomi ma nga nële maanaam soxlawu ma ñuy laajte ko ma jur soo ma gisee <laughs> mm-hmm, ah, mm-hmm. waaw waaw fu waaw maa ngi maay doomi ma nga nële <laughs> ah. waaw boo maanaam maanaam boo ma séenee rek xam ne am nga xam ne am nga koo seen. waaw man man nag loolu laa gëm. gis nga hmm. man nii. Hmm. man ay diw cëri diw ak maanaam ñi bokk ci diw ak yooyu du ma leen di toppatoo. Hmm. man daal yooyu yëpp du suma toppatoo new ci. man daal nit ki nit ki rek laa ittewoo. nit ki nit ki Serigne Cheikh nee na. nekk Serigne du farata nekk labbe du farata nekk nit mooy farata. <laughs> <laughs> Eh, te nee na doomi nee na doomi sëriñ pour mu sotti lu lu jafe la nee na waaw nee na doomi sëriñ pour mu sotti nee lu jafe la sotti mooy mooy mu way ah waaw <laughs> xam nga nit ku sotti mooy nit nit ku sotti mooy nit ku way mooy nit ku mel na mu war a mel waaw waaw mooy mat xam dama fa wane pour mu sotti waaw maanaam pour ñu pare ci moom tur waaw ndax li koy def mooy hmm. eh, ku judd ci yaa ñu gën yaa gën bàyyi soo naafaa rek waaw bu defee hmm. bàkkaar bi nag du ñoom rek de ñun ñu ci bëri ci ñun dañ cee bokk eh, waaw nee na lu jafe la seex te ni ma ko <laughs> ndax ndax yi koy yi tax mag ñi daa yóbbu seen doom yi ñu jànge feneen waaw loolu lañ daan def seen doom yi daanuñ nangu mu nekk ci seen doon man sama baay amoon na daara amoon na daara waaye benn doomam jàngewul ci daaraam ji waaw loolu eh, waaw buy fa ne boo sëriñ bi sax du la ñemee xool yenn xool yi ndax ndax ragal ndax ragal sa bàyyi mere ko <laughs> naa du ko mere. mu ngoog mu ngoog waaye bu fekkee ne nag damaa yore sama doom bu ñëwee jox ma ñaari loxo jox ko ñaari loxo jox ma junne jox ko ñaar téeméer hmm. mu màgg ci yaa ñu gën yaa ñu gën bàyyi kooku bu matee mukallaf nga foog ne nit nga amal affaire fekk dof nga amal affaire. sottiwul waaw ah. sottiwul ah, boo amee baay bu baax nag mën na laa dimbale ba nga am foo xool pour mën a baax waaye doyut nag doyut nag sëñ waaw eh, eh, eh, na mos naa dégg ci Cheikh Ibrahima Niass mu ne waaye sëriñ si nañ dem jàngi ñu noppi waaw waaw yaa ngi noppi waaw waaw mu ne mu ne mu ne daanaka sëriñ su bëri dootul taalibe ak sëriñ waaye buur ak dag la waaw rek dag la ne wala yàlla lañ sax waaw la ko waxee waaw xam nga waaw wala yàlla lañ sax waaw yàlla lañ sax parce que doomu aadama euh, gis naa ci euh, waxtaanu Barham Mahmoud Diop radiallahu anhu mu ne da mu ne bàyyi mos na bu euh, président wu Misra mos na koo dalal mais biñ génnee mu ne bàyyi ne ko daal firaaw na daal foog naa ne ni ñu waxee ne noonu la bonee bonee wutoon noonu mm-hmm. mu mel ni daf ko laaj lu ci jublu wan ko ne ko mbona maanaam mbonu na bon na lool waaye nag waa Misra dimbale nañ ko ci mbon gi waaw mu ne ndax Misra daal ni ñuy màggalee seen kilifa dafa ëpp waaw te doomu aadama dafa tëxët waaw mos naa ko dégg muy firi ni mu ne ana rabbukumu laala gi na waxoon mi ngi ci bopp doomu mi ci bakkanu bépp doomu waaw doomu aadama boo gis ana rabbukumul a'laa mi ngi ci moom firawna nag dafa yeggoon ci bewte fu mu ko béralee waaye seetal seet seet seetlu ko xam nga ku nekk ci ñun boo sañoon li nga bëgg yëpp dañ la koy defal boo sañoon yaa fi dàq yaa fiy gën a baax yaa fi yaa fi ëpp xaalis yaay gën a gudd fan yaay gën a rafet yow lépp cër yëpp lépp loolu mooy ana rabbukumul a'laa jeex <laughs> na ah, ah, ku ne nag ah. waaw nee na ku ne. mu nag dafa yegg ci moom wax nañ ne bi mu ko waxee Iblis sax dafa tiit. Mm. ne ko nag fii sa waay nag wax nga lu man fii sax yegg <laughs> ko ma maay maay seen borom rek dafa rëy waaye bu gën a mag bi. Mm. ana rabbukumul a'laa danga <laughs> <laughs> da nga naan bu yemoon ci ana bu yemoon ci rabbukum mu doy mu doy déedéet bu yemoon ci bu yemoon ci naan mu doy mbon bul wax <laughs> mu doy mbon mu doy mbon waaye bu yeggee ci waaw déedéet du tane waaw mu doy mbon ba mu waxee laala nag mbon gi jéggi na waaw mu doy mbon moo tax fa axadahu llahu nakaala al axirati wal uula waaw fa axadahu llahu nakaala al axirati wal uula inna fi dalika la ibratan liman yaxsha ibra ibra waaw waaw alaguma ko ngir soxor waaye dama bëgg rek ngeen xam ne du ma morom waaw waaw alaguma ko ngir soxor waaye dama bëgg ngeen xam ne du ma morom waaw ngeen xam ne du ma morom du ma morom waaw waaw ah, eh, dama bëgg ngeen xam ne du ma morom Mhm. Mhm. Mhm. moo tax way jur dana dimbale. waaye doyut. doyut de. doyut Serigne Cheikh nee na Maodo daf ko seetsi bi mu jàngee ba ñibbisi si Maodo mu Alaaji Abdoul Aziz Dabakh. waaw waaw leen yàlla boole leen gërëm nee na Maodo daf ko mm. seet si. ko daal dama bëgg balaa ma waxtaan ak kenn ci réew mi ma toog ak yow ba noppi. Mm. nga dénk ma hmm. Serigne Cheikh nee na ma ne ko mag de boo ko dénk ma hmm. mu ne la fii laa jaar hmm. wàcc na mu ne mag soo ne ko dénk ma mu ne la fii laa jaar fii laa jaar maanaam eh, lii laa def mu ne waa mu wax la palmarès palmarès am waaw jaaruwaayam waaw jaaruwaayam maanaam xam nga ki nga ñëw ne ko dénk ma xëy na na mu mel yéem na la moo tax. ci lu nga ñëw ne ko dénk ma mën naa am ni mel neex na la bëgg nga nee mel. bula ah, bu waxee ni mu ah, waxee fi mu jaar ba mel noon nag wàcc na. Ah, mu ne ko mu ne ko boo bëggee donn El Hadj Abdoul Aziz te doo sonn. Hmm. bu ko def bàyyi. Hmm. def ko naw le mu ne ko man Babacar Si nawle laa ko defoon moo tax ma donn ko te sonn ma waaw bàyyi moo koo xam ne boo ko gisee yoori leex lim lim bëgg nga def rek ngay def soo ko gisut soo ko gisut nag man nag mën ngaa taal dëkk bi looloy bàyyi hmm. nawle nag mooy ko koo xam ne luñ lu mu rus ñu dégg ko ci rus nga ñu dégg la ci oh. lu mu jomb jomb nga ko ju dëgër. waaw lay nawle. def bu ko def bàyyi waaw ko def bàyyi bëggee doon te doo mu ne def ko nawle. wa nabbahahu bi aathaari sana mm-hmm. mu mu invité ko ngir mu xam ko xamee ko nag jeexiti jëfam mm-hmm. woykat ba nee na qaalu bima carafa almukallafu rabbahu fa ajabtu binnagmi saxiixi almurshidi mukallaf bi num xamee boromam mu ne ko jëfi boromam ju noosewu ju rafet ji wër ko kawnu bi waaw kawnu bi num noosewoo dégg niñ mel lépp nekk ci perfect order xam nga ne borom bu dara tëwut rekk ko mën waaw wa fi kulli cheyin lahu ayatun tadullu ala annahu waxidun walillahi fi kulli taxrikatin wa taskinatin abadan shahidun hmm. waaw loo gis rek signe la bu lay wan ne yàlla rek mooy yàlla waaw loo gis rek nag signe la bu lay wan yàlla rek mooy yàlla loolu nag ci ngay nem ci ngay dem ci ngay dem ba dootoo gisati yàlla ngir yëfi waaye yàlla ci ngay gisee yëfi yi waaw chataana man bi rabbihi stadallaa wa man alayhi min xijaabin qad dulla wa man alayhi min xijaabin dulla maanaam ki nga xam ne yàlla ci lay tegtaloo pour xam ne yëf yi am na am nañ bokk la ki tegtaloo yëf ngir xam ne yàlla am na ki tegtaloo yëf yi moom mi ngay yéeg waaw ki dem nag ba yàlla xamal ko boppam moom ci yàlla lay xame ne ndeke leneen am na <laughs> eh? Eh, waaw kii dafa xam yàlla. Eh, eh, waaw jafe na ci ku yàlla tawfiqalul. waaw dégg la. dégg naa sëriñ Abdoul Aziz eh, sëriñ moo daan wax ne xaw ma jàmbaar ku yàlla dimbale laa xam. waaw ne xaw ma jàmbaar ku yàlla dimbale. loolooy lu wër. waaw laa xam waaw. te walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana. subulana waaw yàlla lim la def la la wut daf laa jëfloo rek waaw doomu aadama tey jii boo demoon di apply fenn dañ lay laaj say diplôme boo leen waxee ne def naa université fukki at waaye graduate ma undergraduate rek nga maanaam dañuy jàpp ne rek yow am nga am nga bag rek waaye fukki at yaa ngi fa def tak mosoo graduate seen yoon ñoom doomu aadama résultat waaw résultat ñoom résultat lañ soxla doomu aadama yàlla nag saayu la soxla saayu effort yow defal effort rek li ci des nga bàyyi ko wa an laysa lil insaani jeex na tàkk wa anna saayahu sawfa yura waxul résultat ba de jëfam yow effort rek waaw boo defee effort mu defal la li nga mën hmm. Oustaz Aliou Sall yàlla na ko yàlla wëttu mooy wax yàlla du defal kenn lu mën waaw nee yàlla du defal kenn lu mën waaw dana la la wutal wutloo dana la indil wërsëg waaw dana la indil wërsëg ñu ñu mën nañ ko togg indi ko waaye xataa sax ma naa am sa soxna dégg nga sexal la ko waaye sàqambil la ko nag <laughs> am na loo xam ne moom nee na yàlla du <laughs> nee kenn lu mu boo ko ñaanee xaalis sax daf lay jox xelam lu gën a bari daf lay jox xelam nooy wute xaalis su la ah, boo ñaanee yàlla mu nga xëy rek benn projet ne ci sa xel mi yàlla ñaan ngi nangu ne yaa ko fa téye allah waaw yaa moom noonu lay nangoo yaa ko fa ah, waaw lay nangoo ah, mm-hmm. Mm-hmm. am na ku ku ku mbindee di xamal yàlla waaye am na koo xam ne nag yàlla yàllaa koy xamal mbindeef yi waaw kiy tegtaloo ak kiy tegtaloo yàlla duñ benn waaye nag alaaji ibrahima ñas radiallahu anhu nee na moom xàmmeewut ku xàgg ak ku ne ci yoon wi ndax ku ne mm-hmm. yoon wi mm. bu bu taxaw dana àggal dëgg waaw te yàlla waaw te nee na boo neewoon ci yoon wi sa giiru dund te àggoo sax xadaraw yàlla bi jar na ko ëpp na ko sax doy na charaf rek nga ne yàlla maa ngi ci yoon wi laa newoon pour agsi ci yow même boo am nga charaf na charaf waaw mhm. wa ahdara ilayhi mu dogal ko ngant mhm, ahdara mooy dogal waaw ah man su ma woo wa adar la war a nekk filu filu hmm. filu maadi du sukkoon mukk xanaa ngay taxaw te wa adara waaw sukkoon mu nga sukkoon ci filu mudaari hmm. lay tàbbi ak ci filu lamar ci fiil yi waaye du tàbbi mukk ci fiil maadi mhm. wa ahdara ilayhi mu dogal ko ngant mm. ala alsinati almursalina ci làmmeñu yonantu yi jaaree dogal ngant ga ci làmmeñu yonantu yi alayhimu salaatu wassalaam yan yonantu mu ne alxiyarati yay tànneef ngay wax mm. Mm. alxiyarati yay tànneef hmm. bi kasri alxaa'i hmm. wa fatxil yaa'i ok alxiyarati hmm. yay tànneef ñay min xalqihi ci mbindeefa mi maanaam ba mu la yónnee ku la wax lim bëgg ci yow euh, rek lala dogal ngant maanaam ci nga ñàkk amatoo ngant waaw ah, ba mu yónnee ay yonant hmm. te yonant bu nekk mu boole kooku leetar muy téere ba mu indi hmm. ca la lay jeexe waaw kenn du ñëw yowmal qiyaamati ko ma jaa ana bashirin wala nadhir ku ko wax rek mu ne aha faqad jaakum bashirun wa nadir yàlla nee na rusulan mubashirina wa mundirina li allaa yakuna linnaasi ala allahi xujjatun bacda rusul wa laqad bacatna fi kulli ummatin rasula mhm. an ubudu allaha wajtanibu taaxut moo tax li ñuy wax ne lu jiitu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mm-hmm. yàlla ci banu israil rek la daa yónni loolu feni yahood yuñ gëm la rek waaye demeewul noonu de mm-hmm. yàlla moo ne walaqad ba'athnaa dëgg dëgg nun mm-hmm. dee yónni nañu fii kulli ummatin ci bépp xeet rasuloon ndaw ndaw yëpp nag benn message la ñu amoon an ubudullaha baax na an ibudullaha baax na wajtanibu taaxut an ibudullaha boo dee jàng xafs eh, an asim an ibudullaha la ñu wax boo dee jàng warsh an naafi an ubudullaha nga waaw an ah, anu mhm, mhm. ndax wa in min ummatin illa xala fiha nadir loolu la yàlla wax amul wenn xeet lu dul ajuwaare féex na fa mooy yónni naa fa ab yónent du noonu waaw bu dul woon loolu danañ ko wax ne law laa arsalta moo yàlla lu teewoon nga yónni ilaynaa jëm ci ñun rasulan boo ko defoon fa nattabia ayatik mm-hmm. waaw boo ñu yónnoon aw yónent xam nga ne ñun ah, ni waaw hmm? ah, ñun niñ mel suñu bakkan ni ñu mënee nga seetaan ñu ni yónnee woo ñu kenn hmm. xam nga ne nii rek kon lañ mën a mel lañ mën ah. waaw waaw nag wa aadara ilayhi hmm. daggal na ko ngant moom yàlla ala arsil alsinati almursalina jaaree ko ci làmmiñu ñu ñu yónni ko dalee ci maam Aadama ba ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam waaw ci biir yonantu yooyu nag am am nañ ci ngëneel waaye ki ci gën nag kenn werantewul ne mooy yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ashalul masalik mu wa afdalu lxalqi jamian ahmadu wa baadahu lxalilu nicma sayidu waaw ne ki gën ci li yàlla bind mboole seen mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga nag Seydina Ibrahima ak ña ca topp ci ulul azmi ulul azmi nag hmm. <laughs> am na ñu ne fukk la boole nañ ci ak Ismaayil ak ñeneen waaye li gën a siiw mooy juróom la mooy juróom ñi yàlla tudd ci minka waaw ci suuratul ahzaab wa hmm. minka wa min nuuxin wa ibra wa id axadna min annabiyiina wala min annabiyiina ñaari baax na misaaqahum wa minka wa min nuuxin gis nga mooy mooy gune ci zaahir waaye mooy mat moo tax yàlla njëkk tudd ci baatin oh. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ñi ñi ci boole borom nattu yu rëy yi nag ñu ne nattu yaa tax yàlla boole leen ci ulul azmi ndax bu yàlla nattooyee Ibrahima safara hmm. nattoo Nuux aw nitam ak lañ ko lor yëpp ak gaal ga hmm. nattoo Muusa Firawna ak torture ya muy torture nitam ak sonnal gim ko sonnal nattoo hmm. isa yahudi ak ruum hmm. nattoo na it yonent yàlla ismaila ak ren diga te muñ na ko moo tax am ñu ko boole ci ulul azm hmm. ah, waaw maanaam bu fekkoon ne ah. yàlla dafa yónnee courrier rek jox ko paate mbaa demba mbaa kumoo kumu hmm. te melul nam war a mel sax ñu war ko nangu rawatina nag bi mu seetee ñi gën ci ñun nga xam ne ku sañoon mel ni ñoom ah. mu jox leen li mu jox leen liy tax ñu mën a mel ni ñoom waaw lii tax ñu mën a mel ni ñoom ci ci waaye mën a mel ni moom ñoom gi nag ci ca fañ mën a toll moo tax mu ne alxiyara hmm? yonentum yi nga xam ne ñoom ñooy ñi gën min xalqihi ñooy tànnee fi maanaam ba yàlla bu yónni it du yónni ne hmm? waaw du yónni ñaaw du yónni dénk ko amuli bokk du mm-hmm. yónni bàqaar du yónni ko am benn jikko ju suufe mm-hmm. waaw du yónni ko am benn jikko ju suufe mm-hmm. fa hada mu jubal moom yàlla man képp koo xam ne waffaqahu dëppale na ko bi fadlihi ci ngëneelam ca yàlla wa adalla man képp koo xam ne xazalahu gàcceel na ko seetaan na ko hmm. Hmm. bi adlihi ci màndoom dëgg la maanaam sama borom taala ñëpp la hmm. jox hidaayatu waaye hidaayatu ñaar la hidaayatu dilaala ak hidaayatu inaaya hidayatu dilala ak hidayatu inaya wala nga ne hidayatu dilala ak hidayatu tawfiq hidayatu isnayn mhm. hidaya maa ngi ko jël mhm. hidayatu naka dilala waaw dalalatu ah yàlla wax na ci alxuraan ne hidayatu dilala ak hidayatu tawfiq wal inaya tawfiq mhm. bismillahi irrahmani irrahim chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan ah hudan hudan linnaas linnaas hudan linnaas dama fekkoon maa ngi waaw waaw baax na mhm. baax na hudan linnaas hmm? bismillahi rahmaani rahim alif laam mim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan linnaas alif laam mim laa ah ah lu tax mu ne hudal li naas ba pare ne hudal lil muttaqin laysa kullu naas muttaqin ñëpp jubuñ di ñëpp ragaluñ yàlla ah hmm? hudal lin naas mooy hud mooy hidayatu lil muttaqin mooy hidayatu tawfiq man de kër kër kër imaam waaw kër imaam Baay laa jëm laa bëggoon a dem hmm? ma ne la ah kër imaam Baay de boo fa bëggee dem boo génnee jàkka ji rek da ngay jël sa ndeyjoor hmm. boo génnee jàkka ji jël sa ndeyjoor gindi la hmm. waaw gindi naa la ba ma ne la boo jëlee jàkk boo boo boo waaye gindeeku nga waaye gi maanaam ba ma ne la boo jëlee boo génnee jàkk ji jël sa ndeyjoor rek gindi naa la ba nga jëlee jàkk ba nga génnee jàkk ji nag jël sa ndeyjoor eh. gindeeku nga ma ne la kër baay kër imam baay boo jëlee jàkk boo génnee jàkk ji jël sa ndeyjoor nga génn jàkk ji nga génn jàkk ji jël sa càmmoñ gindi naa la waaye gindeeku woo <laughs> léegi nag ki am ki nga xam ne nag biñ ko gindee gindeeku na moom pour mu àgg kër baay kër baay soxla na geneen gindeeku mooy hidaayatu tawfiq ba mu ba mu jëlee mbe ba mu génnee rek jël ndeyjoor ma ne ko nag boo demee ba jot juróomi laayit dégg nga tourneel sa ndeyjoor kër première kër ñaareelu kër ñetteelu kër gi mooy kër ma imam Baye loolay hidayatu tawfiq allahu ndax kooku initial hidaya gi daf ko nangu moo tax ñu jox ko la détails yi maanaam ki jaar ci yoon wi ki nga xam ne nangu naa ñëw topp lislaam nag ñu jox ko ne ne ko lislaam nag nangam ak nangam ak nangam ak nangam ngay def waaye ki ki nga xam ne nii moom bañ ne ko lislaam a ngi ni yoon waa ngi nii mu jël càmmoñ su neexoon yàlla mu jàpp ci loxoom forcé ko mu jël ndeyjoor waaye bam ko seetaanee nag ndax tànn na jël càmmuñ wa adalla man xadalahu bi adlihi allahu akbar laa ilaha allah ñëw na ah. wa xasalahu waaw mu réeral man ka nga xam ne xadalahu gàcceel na ko bi adlihi ngir mandoom bi adlihi ci mandoom maanaam wan naa la bañ nga moo tax yàlla mun yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran waaye nag wa maa yudillu bihi illa alfasiqin waaw ñaari hidaaya yooyu la yàlla di junj ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na yonent bi ne ko mënoo jubal kenn man maay jubal ba pare ne ko nag ba pare ne gis nga gis nga mhm. Mhm. jàng mhm. foog ñu defal la ko maanaam mënoo loo dégg-dégg arab ah pour pour xam daanaka daanaka am lu bëri. dëgg la dëgg la gis nga la dafa mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. la buñ la bayaanalee rek ci ngay door la dëgg la dëgg la <laughs> ah, dilaala moom ñëpp ñëpp ñëpp la ko yàlla jox ñëpp. hidaaya waaw kalima hidaaya bi de. hidaayatu dilaala mooy hidaaya maanaam yoonu tegtal hidaayatu dilaala mooy hidaaya tegtal. déedéet dilaala bi mhm. waaw mhm. dilaala mhm. baax na dalaala baax na waaw def naa boobu ñëpp ko bokk maanaam yàlla dal la ah. a ñëpp ko bokk waaw léegi nag hidaaya tawfiqiya moom hmm. ki nangu hidayatu dilalati mooy am hidayatu tawfiq ci lu ah. doo jot ci bii waaw ah. moo tax mu moo tax wa adalla man xadalahu bi adlihi hmm. ah. ki bañ nag mu seetaan ko rek waaw moo tax yàlla wax yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ñaari hidaayatu waxal na ko yonantu bi ne ko bii moomoo ko bii nga moom ah, bii mënoo ko bii nga mën xam nga yàlla moon yonantu bi innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha mënoo jubal ku la neex yàllaay jubal ku neex oh. loolu la ko wax ci sóoratu alqasas defe naa hmm. Hmm? Hmm, du loolu la ko wax innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yashaau wa huwa aalamu bilmuhtadin ci suratu shura lu mu ko wax wa innaka la tahdi ila siraatil mustaqim hmm? waaw seetal seetal loolu xam nga loolu kii déggul mën na wax ne dafa am contradiction fekk déedéet dafa am contradiction bii daf ko ko aaye bii mu jox ko waaw mooy yow wa innaka la tahdi mooy yaay wane yoon wi hmm. waaye innaka la tahdi man ahbabta jàpp ci loxo nit nag ba mu agsi maa ko mën wala innaka la tahdi yaay wane yoon yaay wax nit ñi li ma bëgg waaw waaye innaka la tahdi ñu nangu ko nag mënoo ci dara kooku man la oh. waaw maanaam xol bi moom afa anta tukrihu nnaasa xata yakunu mumin muminina waaw waaw waaye ku ubbeeku ngir nangoo déglu rek moom walakin allah yahdi man yacha waaw mhm. moo tax wa yasara al muminina lil yusra wa yasara ñaata ñaata minute la am waaw ah, am nañ ñu jëlaat nine ah. minutes <laughs> am nañ fifty one minutes. <laughs> Eh? léegi eh? ñu taxaw fii. <laughs> waaw taxaw fii beneen yoon incha allah commencé wa yassaral mu'minina lil yusra incha allah ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah wallaay ndeysaan nawawi ci kay incha allah ah, nawawi imaam nawawi ku ku ku yàlla may la hmm. waaw ah. waaw ah, ku ku yàlla may la ndax boo xoolee li mu taalif ni mu ah. bëree hmm. gannaaw alquran téere bi ëpp luñ mool gannaaw alquran riyaadu saalihiina la déedéet du arbaina nawawi eh, moo taalif riyaad gannaaw ga moo ta waaw ar ba muy taalif arbaina al hadis hmm. booba dafa xewoon mënuloo mënuloo wàññi ñaata borom xam-xam a taalif waaye bosom rek ngay dégg. Ah, mu ngi mel ni mu muwatta yu bari lañ taalifoon ci Malik Malik ne ñu koy wax ne ko ñi diw taalif na génnee na bosam diw mu ne bu yàgg bu yàggee rek danañ xam ban lañ na mu yàlla. allah. waaw waaye Imam Nawawi moo taalif moo taalif eh, arbain moo taalif Riyadu Salihin moo taalif minhaaju taalibin moo taalif rawda taali téere bi mu taalif ci charxu ci saxihu muslim charxu ko ba su ma bu gën a rafet noonu ci jamono moom lañ daan wax cheikhu shafiiyati lañ ko daan wax waaw gannaaw imaam Shaafi mooy xam nga bu ñuy wax ci ci sax bu ñuy wax ci saxaaba yi ne cheykhaani boo déggee cheykhaani ci saxaaba yi rek Aboubacar ak Omar xalaat Seydina Aboubacar Seydina Omar radiallahu anhuma boo déggee cheykhaani ci xadis rek imam muslim ngay ngay xam ak buxaari waaye ci ngiram shafii bu buñ ne al rek ñu ngi ca namm abul qasim ak al imaamu nawawi rahmatullahi alayhi wax nañ ne sax moom moo taxrir ngirum imam shafii ba moo tax bu bu ñu waxee rek ba ne ala ma rajaxahu al te nit ki passé dundul lu ëpp fukki ñaar ñeent fukki at juróom. 45 years. Ah, loolu. loolu ah, ah, sakkan loolay bar loolay barke El Hadj Ibrahima Niass mu ne du jëmm waaye lu dugg ñu xam ko lu ne ñu xam ko. Oh, oh. <laughs> yàlla nañu yàlla may barke yaa rabbi. amiin yaa rabbi so <laughs> barakatul Qur'aanil Kariim. ah sëñ bi sëñ bi tey ndeysaan war ndeysaan. <laughs> ci ci ci ci ci ci yow la nag sañ daaw de si dafay wax ne léeg nga gàmmu am ku daanu nga foog ne yow la te fekk la lako ko daane ci moom la du ci ko du ci yow mi wax dafa am loo yee ci moom loo xam loo laal ci moom lu ne ci moom mën naa am sax yow miko laal newut ci yow loolu beneen xam-xam. wallaahi waaye sëñ bi dëgg dëgg jazakallah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu kon incha allah amiin ñu bokk de la rek waaw ci xasakaay gerte waaw fiali maladu naas fi diinin wa dunya badulun duna manin bi nawali shujaaun fi ixtiyaadin واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد